coow li yàgg naa jóg ca ca ca ca Farba Senghor Farba Senghor moo ko indi ak Amar Sakho coow li coow li ci sunu 30 hectares yii Farba Senghor la ak Amar Sakho Farba Senghor nag moo ñëw nangu 15 kii ne moo ko moom mu ne mu 15 yi jëm ci kanam mu ne mu jox ko Amar Sakho Amar Sakho nee na ma kaa ma jox la ñaar hectares ma ne ko yow mënoo maa jox état moo ñu jox 30 hectares joxuñ ko Amar Sakho joxuñ ko Cheikh Diouf 30 hectares ancien travail ancien travail yëpp lañ ko jox loolu kon yow mënoo maa jox yow Farba nag dafa ñëw nangu saa yu ma ñëwaan fii day téléphoné gendarmerie bi sàngal kam ñu jël si ñu ma fi man donc sàccu ma réyu ma te damaa jur doom damaa am ami doom ma ah, Farba sama day yebal sàngal kam ñu ñëw jël si ma fi man donc loolee nag bayu ko ba tey bis nekk tey nag nun danoo danoo danoo am ay doom bañ ñuy jox 30 hectares boobu ay ndaw la léegi da dañoo màgg suñu doom ak nii tool nañ ñun yor ay kër dama ne tool bi na ko Omar na na ko na ko Farba Senghor bàyyi Farba Senghor mu amu fi dara doole la doon jaay ba mu nekkee ministre 1050 hectares la bët Sénégal ñun amuñu doon 30 hectares moom du dem ci yeneen yeneen yeneen yeneen place yi. Robert Sagna moo ñu jox 30 hectares yi bindu kay jox nu de de deux mille carte borne carte borne yëpp maa ko teg carte borne fi lañ yebal. man dong lañ fekk quatre bornes yëpp maa ko teg tant hectares ñu ngi ko extra li ñu man ndax ba ñu ba ñu joxe ba ñu joxe dañoo dem ah, am am ah, wut benn béykat bu ñu faa gafari mi ngi fi ah, gafari kër yaay loo muy jox ñu ay tuyaux nu nu nu nu fa ko di liggéey ba ñu ba ñu béy ba ba mbéy bi eggal ñu jox ñu jox ko ñu jox ko quatre vingt quatre tonnes mu mu war ñoo fay mu fay jaay ko cent cinquante soixante quinze mu yónnee vingt cinq pour cent yi mu mu def ko ci borom mu bañ mu ne xëy moo tax ñu am borom ndox trois millions amuñu mënuñoo fay trois millions yi boobaa ak léegi ñun ñun amuñu suñu ndoxu bopp amuñu suñu ndoxu bopp Farba Senghor moo jël tool bi di ko jox benn benn béykatu nag bu ñuy wax naan baaxaw ma su ko su naatee bu fose mu jox camion bu ne cent vingt mille ñun ñu toog. ngir ya ñaan ko suñu borom yàlla mi leen fi teg ci nañu dimbali gestu ñu moom président de la république na ñëw fii jox may nu liberté total jox nu suñu delloo ñu suñu 30 hectares xale yaa ngi nii ci suñu gannaaw tool nañ ñun amee doom ak jabar yu ndaw nañ ñu delloo suñu 30 hectares